xam ni mbégam sa mbég la nga sant la ci yàlla saa su bés bi dellu see loolu moo sabab seen télévision Futurs Médias saa yu ñëwee léppam da koy bàyyi ngir ñëw ànd ak jullit yi rawatina taalibe Cheikhul Khadim yi ci xew-xew bu mag bi ñu am féex nag dalal euh, sëñ Alaaji Njaay euh, Cheikh Ndindi sëñ Alaaji Njaay sëñ Daara sëñ Alaaji Njaay moom it ku jàkkaarloog moom rek sa xel dana dem ci Daara te bu nee Daara rek tudd alxuraan. kon ñu bëgg am ak moom jataay diggante sëriñ bi ak alxuraan ndax sëñ bi lu mu am rek ci sunu borom la ko jële ci rasulullahi sallallahu alayhi wa mi mu ni woon dand la ko jële te loolu sukkandikul woon ci lenn lu dul alxuraanul karim ak sunnas rasulullahi sallallahu alayhi kon balaa ñuy jox sëñ yi mu nuyoo dañ koy ndokkeel ci bésu tey bii nga xam ni kuy jullit teewoon fii ci Touba rekk bëgg nga ci ku ko dégg itam ci média bi itam bég nga ci euh, sant ko ci ñaanal ko ci ak mbooleem ñi nga xam ni àndaloon ak ñoom ngir concours bi nga xam ni wax dëgg yàlla sagu lislaam gépp la bégal xale buy jàng alxuraan dajale leen ñu jongante te jongante boobu mooy jongante bi am njëriñ ba ñi nga xam ni génn nañ ci ñu neexal leen ci wàllu ñàngin rafet mokkal gu rafet yamuñu ci boole itam ñoo xam ni itam lu mat juróom fukki nit ñoom it tànn leen ci biir dëkk bi ak daara yi ki ci gën a dégg diine ci fànn bi nga xam ni ñi ngi koy jàngi diine fii ci dëkk bi ñoom it ñu primer leen neexal leen waaye li ci gën a rafetati itam muy ñi nga xam ni seen dund yëpp dañ ko jeexal ci lislaam jeexal ko ci jàngale nu Cheikhul Khadim ñu tàmbale woon ko ci sëñ As Jaxate mais nga xam ni bii ñu unigilee jumaa ji rek 1963 sëñ Fall daf ko jox ndigal mu tàmbalee jàngale ci jumaa ji njaboot sëñ Tuubaa ñu bare jaar ci loxoom ñu jóge ci moom dem ci sëñ Afia sëñ bu Bousso nga xam ni ba fi mu nekk nii moom it ni ko sëñ As saxale ci jumaa ji moom it noonu la saxale daara ji boole ci bokk ci imaam yiy jiite ci jumaa ji moom it ñu ràññee woon ko daaw neexaloon ko ren ñu tànn sëñ Abdourahmane moom sëñ Abdou Khoudous nga xam ni moom it ay ati at mi ngi teg tànkam moom it foofu nga xam ni fala la waajur yi ma tegoon tànk yi fa la maamam tegoon tànkam maam Thierno Ibrahima Fati waaye mu boole ci nag xarañ gu bees gi nouvelle technologie da ci jàngale ba nit dana nekk Australie ba Amérique ba France ba fu mu ci mënti doon sëñ Abdourahmane di la jàngal moom it ren ñu décoller kon sëñ Alaaji ñu ngi leen di ndokkeel ci loolu euh, di leen jox kàddu gi nag ngeen nuyoog euh, mbokk jullit yi ñu fas yéene tàmbali thème bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee muy diggante Cheikhul Khadim ak alxuraanul karim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 télé bii nga xam ne moo di TFM fas yéene ni nga ko waxe sànq séq ak yéen jataay boo xam ne mi ngi jëm ci waxtaane Cheikhul Khadim radiallahu anhu ak alquranul karim di tomb bu am solo xanaa du ñu def lu may ñaan borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy borom kattan moom mi nga xam ne mooy borom sañ-sañ mu jàpp nalal ñu ba ñu mën fee wax loo xam ne dana jariñ mboolem ñoo xam ne ñooy bàyyi xel jataay bi ginnaaw buñ ñu leen delloo ndokkeel gi yéen it ci concours alxuraan boobu ngay wax ñuy jullit ñëpp ñoo ngi leen ci ndokkeel na mbokk yi nga xam ne ñoom lañ seqaloon ñu doon ñu jàppale ci liggéey bi wax dëgg yàlla rawatina nag sëriñ Bachirou Mbacké Abdoul Khadir mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation màggal gi ndax wax dëgg yàlla taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci. ci indi ko ci biir yëngu-yëngu màggal gi ginnaaw bi ñu ko daan def ci weeru koor mu jël matuwaay ne nañ ko indi ci biir boole ko ci activité màggal gi wala du dara lu may ak yittewoom alquran ak yittewoom xam-xam ñoo ngi ko ci sant bu baax <clears throat> di ko ci ndokkeel di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala mu sàmm ko. ba àggale ay mébétam ak mboolem ñu fa teewoon ñëpp ñu leen di bàyyi xel. Euh, jërëjëf euh, sëñ Alaaji euh, buñ ne Cheikhul ak alquran. faaw daanu jël diggante bu gàtt ay simili yu gàtt ñëw ci cheikhul xadim ak daara te daara ngeen jeexal seen lépp ba fuñ ne sëñ Alaaj Njaay sëñ daara lañ ciy yokk euh, cheikhul xadim tey jii boo doon nataalal mbokk mi nga xam ni da ko doon dégg waaye xamul jaar-jaaram tàmbalee ko ci waajuram wi nga xam ni dafa gane àddina ci daara muy ci sëñ Mor Anta maam Soxna Jaara lan nga nuy indil ci atam yu jëkk yooyu mak ak Jadi Jeff euh, serigne Abdul khadir sunu sangi bi di serigne touba radiyallahu anhu day yalla daf ko wajal mom mi nga xam ne mu wajal nga jek daf ko wajal ci waajtaayu ñaari negam yëpp muy walu wa keur serigne mamour Anta Sali wajiram wu gor ak sonu jaratullah Mariama muy waajuram wu jigéen ñoom ñëpp maanaam meññeeti daara lañ ngir tey daara lañ seeni waajur meññeeti daara lañ ngir tey daara lañ seeni maam meññeeti daara lañ ngir tey lañ seen maam mi nga xam ne moo ko meññ muy maam Maharam néewaana taal jàngu booy wax ci senegal lulul ne ak matta ma fa. néewaana taal jàngu booy wax ci Sénégal lulul ne ak matta nga ma fa. muy ay sëtam yoo xam ne ñoo ko taxawee. Serigne Touba radiyallahu anhu nag feeñ ci keppaar googu. Mhm. te daan te maam maaram. mooy moom kay askan wi. Mhm. moo tax ma askanam wi ci ñaari wetam yëpp. Mhm. ci waajuram bu góor waajuram bu jigéen. radiyallahu anhum ajmain ñoom ñëpp ñi ngi feeñ ci nekk nit alquran nekk nit xam-xam. nekk nit lislaam ñuy dund sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko dundal. nekk nit borom jikko yu rafet. nekk nit ñoo xam ne yàlla daf leen waajal. ne borom Hamsiya waxoon ne ci ba mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko day yàlla musa den di la waajal ci ay ndey ak i baay ba fii nga agsi doon ki nga doon sunu sang bi Serigne Touba it noonu la ko yàlla borom bi subhanahu wa taala def bi mu feeñee keppaar gi mu feeñ sëtam maamam yooyu ma wax léegi ñëpp di nit daara bi mu ñëwee ci fekk way juróom wiit Serigne Mamadou Anta Sali nitu daara la woon daara la yoroon di jàngale alquran ak xam-xam daara ju daan riir ci wet yëpp ay nit di jóge ci mboolem gox yi ci Sénégal <clears throat> mboolem gox yi ci Sénégal am ñu daan jóge sax ci bitti Sénégal di ñëw di jàng si alquran ak xam-xam ci Serigne Mamour Anta Sali mhm. moo xam Jolof la moo xam Kajoor moo xam Bawal moo xam Saalum moo xam Njaamur gox yëpp yi ci Sénégal daanañ fa ay nit daanañ fa gongi ko di ñëw di jàng ci waajuram wii di Serigne Mamour Anta Sali radiyallahu anhu mhm. Euh, mu amoon ci taxawaay bu am solo waaye boo dellusee ci wàllu kër waajuram wu jigéen ñi noonu. Mm-hmm. Soxna Asta Walo moom ni ni góor ñi daan toogee di jàngale noonu yore woon daaraam toog di jàngale. Mm-hmm. mbooloo mu wër ko muy alquran ak xam-xam. Mm-hmm. sëriñ bi feeñ foofu ñu waajal ko waajuram wu góor woowu di sëriñ Mamadou di jàmbaar. di borom xam-xam di ku yéeme woon. waajal ko ci waajtaay. ak ndawam. fi ñuy jaarale nit koo xam ne dañoo bëgg ëllëg mu doon dara ñu jaarale fa sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mm-hmm. ci mu jàng alquran te teel koo mokkal lool mm-hmm. jàng xam-xam teel koo mokkal lool teel koo xam lool teel a géeju lool ci wàllu géeji xam-xam yi mm-hmm. ci ay funuun maanaam ci ay fan branche yu wuute yoo xam ne yu wuute mhm. bu nekk sëriñ bi radiyallahu anhu géeju ci mhm. ba bu ci nekkoon doon doon doon wax ak yow da yaakaar ne ci gii rek ci la spécialisé wu mhm. moo xam usul la moo xam mantiq moo xam tafsir moo xam bayaan eh, moo xam luxa la moo xam naxwu lu mu doon ci yooyu sëriñ Tuubaa teel cee géeju ci ak ndawam waaye yorul woon xottu xam-xam Mm-hmm. dafa nekk ku teel a dund xam-xam wax na ni sax dem nañu ba ñii daan jàng ci sëñ Mor dem nañu ba jàng ci sëñ bi sax day mujj dàq ci ñoom ndax ndax pédagogie am bu waaw aw doxal loolu yàlla da ko teel a may ak mm-hmm. xereñ mm-hmm. yàlla ko teel a may ak xereñ ci li mu yor maanaam ni ma doon wax léegi li mu yor yurul woon xotti wi kese waaye def ko doon dund ba mu sëxeeñ ci moom mu nekk juñ jikko yi muy dund maanaam li mu daan jàng alquran da doon dund alquran mu jikko ci moom ni mu daan jàngee euh, sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko daan dund. ba sunna si sëxëñ ci moom nekk di ko ci moom. loola waral nag ku masaan di jàngal da jàngal ci anam gépp da lay jàngal ci xaraf yi nga ko tiim. di lay jàngal ci suluk maanaam ci ay doxaliinam ay jëfiinam ay waxiinam léppam. da nga ciy jàngal li nga xam ne moom la doon jàngal ci kayit yi li la doon jàngal ci yax yi. loolu moo waral mu teeloon yéemu ba ku mas a jàngal. ku ma sa taqoo moom ku ma sa jaxasoo ak moom dootoo bëgg mu ko tàqali ko ak Serigne Touba radiyallahu mm. ci jamono ndaw ci jamono yooyu kon euh, ci tënk loolu ci di jamono euh, bi mu fi nekk nekk waajuram ñu seq daara ji yàlla dogal sëñ Alaaji euh, waajuram jóge fi mu yor daara ji diggante bu gàtt ñu ñëw nag ci état bu Mbàkke Kajoor daj na àddina sëriñ bi ni ku fi jàng kese indi woon yeewi nan la koo xam ne nag li ma bëgg moom nga bëgg toogal léegi loolu nan lañ ko war a jàngate ak ni sëñ Tuubaa xuuse noonu continuer ak wéeg alxuraan ak ni mu doon tarbiya magam ñu tedd ñooñu. waaw loolu di lu euh, pàcc bu am solo. Mhm. waaye day am lu ko jiitu tuuti. Mhm. li ko jiitu tuuti mooy sëriñ bi mu ñëwee. Mhm. fekk daara. ci ni mu mel. teewul nag euh, am na ñoo xam ne raxoon nañ ci ci bari yu ci bokkul. ci sëriñ bi bokkoon ci ay xeexam. moy lepp lu ci bokul na ci hmm damay wax ne bi mu ñëwee dafa melni ki dafa consulter dafa nek ben médecin bo xam dafa consulter askan wi hmm ba gis ne maladie bi dal askan wi moy moy moy bi hmm ngir mu faj askan wi faaw mu jox leen médicament bi nga xam mo moo efficace pour pour maladie bi takaliko ak ñom hmm limu consulter askan wi dafa def diagnostic diagnostic bo mhm, ne dafa gis ne mhm. société bi dal mhm. alcorane a ngi seen biir ñi ngi mokkal alxuraan di ko mokkal mokkal yëgën a rafet waaye teewul sëriñ daare bi mën naa am caayee bandam. sëriñ daara bi mën naa am caayee laawaanam. Mhm. sëriñ daara mën naa am caayee mhm. taxuraanam. Mhm. nga ne bu fecc jotee yooyu yëpp xeeti caay la yoo xam ne bu nekk bu la muy am pecc lay doon. ca teewul nga alxuraan nekk sab dënn mu ne daal am na kon lu des. ba ñu jël yenn saar yi sax. am na kon lu des danañ ci wax ci. lu mel ni laawaan. loolu ngay wax loolu lu am solo muy lu mel ni ki laawaan. nga xam ne ñenn ci kaa ngi alxuraan yi ñoo ko daan def. ñenn ci borom xam-xam yi alxuraan yi ñoo ko daan def. sëriñ daara yi. muy li ñuy wax laawaan. Mhm. laawaan sëriñ daara bi da ci daan am alal ju bari ju ci daan wute. Mhm. nga xam ne bu masaan jug day dem ci aw tund. waa tundu woo mboolem village ya nga xam ne ñoo jege foofa dage ñu ne sëriñ daara sangam ñëw na seet si tund bi tey. Mhm. ak yor-yor wala ginnaaw takk ak takkusaan ñu ñu géewal ko géew bu mag moom sëriñ daara bi mu nekk ci digg géew bi. di jàng alxuraan di tare alxuraan di ci boole tor yi ak boole yi ñu ci daan def. waaye ànd ak loolu nag saa bu àggee ci barab boo xam ne gis na ne bu am rythme la bu bu war a mën a fecc ci li mu yëg moom mu fecc lu mel ni ki wala aadiyaat dabaxa dañ koy tëggal mu fecc wa saafaati safa dañ ko tëggal mu fecc wa wa daariyaat darwa dañ ko tëggal mu fecc mais buñ ma saan def seen laawaan yooyu ba noppi sëñ Abdou Khadir dañ ci daan jëlee meññeen mu baree bari maanaam ñii dañ leen jox ay ginaar ñi jox leen ay xar ñi jox leen ay nag ñi jox leen ay béy ñi jox leen soxna sax ñu leen daan may soxna laawaankat bi loolu ne daana ko ci am. Mhm. Serigne Touba radiyallahu anhu bi mu gisee ne nag lii doxul ca wares na koo soppi. Mhm. Serigne Touba daal di jël ne stratégie bu bees mooy ku bind kaamil alxuraan yit ko Serigne Touba. Mhm. mu jox la loo xam ne da ci mën a dund ren ba déwén. ca doo def loolu. ca doo def le ca kaang alxuraan yi bind kaamil yomboon leen. ah gars yi nag dool tàmbali nag fu ne nag kaamil nag di fa jógee di mm-hmm. Mm-hmm. wuti Serigne Touba radiyallahu mm-hmm. la ko sëñ Moussa Ka waxe woon eh, Saalum di bind di ko yut Kajoor di bind di ko yut Bawal di bind di ko yut muy jënd ay mool di ca rax tegoon ne boo féetee woo di ko bindal mu féetee woo di la dundal boo koy bayal di ko dundal mu sàkk ñuy bay di la jox ah, wala na mu ko waxe woon ca bay di ba gis nañ ne kon loolu ci laay faral di wax bay di may faral di wax muy naaru gànnaar bi bay di yooyu mu wax نان ما إن أبالي إذا ما ظن ذو مالي عني بأجرة قتل مصحف العالي ما دام قوت الورى حيا يبجله حقا ويبذل فيه قالي المالي نينا من دال كويرت سأل الدجنائي يا خم تيلن سين علي من أمنا كنت بنك بو خم نسابو ما جاهلة فلاي دم أبي رجيرة سما سما خالص مينو قال لهم من سي أحمد بامب في مينجي ترى لن ينجل خواني كبين كامل الخوان يدكو مترى لترى عن جريجي دودو ما جاهلة di misaal kër sëñ Tuubaa nga nam daan mel jamono yooyu nan fii kulli yawmin tuwaafil alf manzilahu tutla bi am saali hamid baada am saali mhm. nee da ngay gis ay junniy junni nit ñu rang wuti kër sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu mhm. nee na nga ne ko xanaa kon dana dem ba ci yàgg mu yokkat wala mu dellu gannaaw wala mu tàyyi mu ne déedéet wallahi ma zaadahu illa biha farihan wa batlu ma lam tanalhu kaffu badali mhm. nee na day fu mu toll mi ngi gën a woon mbégte ak di joxe loo xam ne gars yi yoruñ yoruñ ko nga ko xanaa kon bu nangu kamil dana nangu ba ci yag mu tayel wala mu sonu mu ne déedéet ka annama akhir al maqud awwaluhu mimma yulaqihi min hubbin wa illani serigne touba bu nangu kamil di nangu kamil lu kaamil bari bari bu nangone junni junni kamil day melne bu kamil ba mujj nangu day melne kero keroog la Sëriñ Tuubaa mas a nangu kaamil loolu di di misal serigne touba nam fekke woon alxuraan ak liggey ba mu ci liggey mu gina kon mu récupéré woon alxuraan ba kaa nak lañ dan daj ci lawani di yokk yokk di di xëy di di jànq di daj lu nekk di mhm. jont wante ka war mhm. ñu bindi kaamil nag di yut Serigne Touba mhm. radiyallahu anhu te moo gënoon woyof ci ñoom ndax dañu daan mokkal di wër di wër ay tund dañ koo jekk woon waaw ma dañoo jekk woon alxuraan ndax boobu da daan gis ku dem ba am fanweeri at ak yooyu sax di di di jàng bind maanaam maanaam baalu ko euh, yéeme na alxuraan mag ñi dañ cee liggéey yàlla ñu daal yàlla fayal amiin amiin dañ cee liggéey liggéey yu yéeme may faral di wax ne liggéey yooyu mënoo cee wax ci tukulóor dëgg la tukulóor askan la tukulóor mm-hmm. askan la woo xam ne xeet la woo xam ne yàlla daf ko daf leen a jox cër ci lislaam ci Sénégal mm-hmm. daf leen a jox cërit ci ci ci alxuraan loolu mm-hmm. yàlla dogal Eh, gis nañ ne tor yi mënoo mënoo koo wax maanaam boole yi mënoo koo wax ci la ko mm-hmm. boo ne la maa jëm jëm rek na sàpp mm-hmm. mu neexal mu naqare la maanaam saa boo tàmbalee boole yi alxuraan yi rek rek ci la tukulóor Ka ma nga bu ñu ñëwee nag ci étape bi nga wax étape bu Mbàkke kii ndax daañu ñëw ndax xam naa ni waxtu yi duñu may lépp ñu tënk rek ndax sëñ bi fi ci jaar ci alxuraan dafa bare lool lool sax mm-hmm. ak lim ko jaral ni mu daan jëlee kaamil yooyu fa mu ko daan teg ak ni mu leen fonke woon lal yi mu daan jël di leen ci teg te loolu yëpp fekk na mu tàmbale lii nga xam ne mooy yoonu jaayante bi ndax xam nga booba euh, li jiitu woon loolu hmm. donga yi dañ daan jàng hmm. sëriñ bi radiyallahu anhu moo leen i taxawu bu dee ñuy war a toppal moo leen ñu toppal hmm. ñi war a téyel moo leen ñu téyel ñi war xam-xam moo leen ñu tëralal xam-xam waaye mu dem ba ci yàgg ca Mbàkke muli ja mm-hmm. muy li ngay wax tey mm-hmm. mu leeral def déclaration bu am solo ca mm-hmm. def ko ci jamono ju metti jamono ju jafe jamono ju metti jamono ju jafe mooy lan mooy xam-xam maanaam jàng xaraf yi valeur la am solo valeur la waaye nag euh, maanaam xottu xam-xam bi amul solo ndax xam-xam kese kese amul njariñ manam di góorgóorlu bu deen da ngay jàng julli ca doo julli jàng woor ca doo ko woor amul njariñ mm, jëfe gi mu ne kon mu gis ne kon ca teewul araf yooyu lettre yi nga xam ne mooy lettre arabe yi. jox nañ ko yitte jox yitte goo xam ne jéggi na dayoo ba tax eh, nit ñi di ci sonn. mu def déclaration ne leen. dongo yi bari lool daar ji fees dell. mu leen képp koo xam ne jàng araf yi képp la fi indi woon. xam nangam baat sangam baat sangam lu muy teg képp la fi indi woon. xami ay masala yu la képp moo la fi indi woon mën ngaa yeewi ko. Mhm. koo xam ne nag lii sa mooy. araf yooyu ngay doon jàng lim war a def ci yow muy defar sa jikko. Mhm. nga nekk ab julit ba borom bi subhaanahu wa taala soxla. la ba dugg ci kuttu mbalub ba nga xam ne mooy ibaaduhu mhm. wa idaa saalaka ibaadi anni fa inni qarib mhm. ujibu daawata daa idaa daani falyastajibu li wal yuminu bi laalami rasudun ku bëgg a dugg ca kuttu mbal bee day na nga ñëw ñu bokk liggéey ku bëgg a dugg ci kuttu mbal ba nga xam ne jaami yàlla yi nga xam ne dañuy nekkal yàlla di jaamu yàlla jikko woo lislaam jikko ba seytaane du man ci ñoom dara illa ibadaka minhum almuxlasin jaam yàlla ja nga xam ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan yàlla garanti ku bëgg a dugg ci kutumbal boobee naal des fi koo xam ne nag da ngaa bëgg nag xottu xam-xam bi képp moom xottu xam-xam bi xottu maaji maanaam defar nit ki ba nga xam ne li xam-xam war a def ci moom dana ko def ci moom moom tax a jóg waaye kon muy lu leer ci ne effacé wut xam-xam. déedéet mais xottu xam-xam kese bu amul njariñ ay théorie kese yu. anti pratique defar ruu yi defar defar xol yi. moo ko taxoon ba ba cër yi itam. Mhm. làggi ci yàlla foofu la jaayante bu jëkk bi. muy muy muy muy muy Mbàkke Kajoor. waaw foofu nag ñu bari ñu bari tasaaroo. ñu bari mhm. daal di fay bàyyi sëñ bi. Mhm. ñenn ñi daal ne daal daa fay taal jàng yi. ñenn ñi daal ne Ahmadou Mbàkke li mu fi dugal xamuñu ko. ñenn ñi daal di daal di ne ñun nañ dem. ay benn benn des fa. waaye nag benn benn yooyu mën nañ ci tudd sëñ Adama Gueye ca la bokkoon sëñ Daaru Asan Njaay sëñ Masamba Diop Sam maanaam ay ay sëñ Daam Abdourahmane Lo ay ponkal sëñ Modou Gueye Jamoy day wax ni ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu mënuñ fa woon a ñàkk des parce que manam xam-xam bi yor nañ ci. te amna ci ño xam ni ñu leral ni fété won nañu mak sax ci saayir sëñ bi ay ay ay xaritu sëñ Mor Anta Sali lañu won waye xam-xam bi newon sëñ Mor ak université ba newon fa mom mo leen bàyyi won fofu waaw xam nga ak ak ni ñu gisee sëñ bi. xam nga señ bi nak señ bi dafa téla rañ ko. dafa téla wuté ak nit ñi aw doxine téla wuté ak nit ñi aw gisin. téla xoti bax day fa la wax ne señ bi fekk manam sosu bi bax askan yi mu feeñ ñu baax a ngi fi woon ñu sell jaam ko te yàlla waajuram woowu doo ci sëkk misaal sëriñ Maam Mor Anta Sali waaye sëriñ bi moom bi mu ñëwee gis-gisam dafa gën a sori mm-hmm. mu wone ne maanaam lu gën li mën naa am boo gisee ñëpp doon wax naan dafa dese ak xel mi matul mm-hmm. mooy lim wane ne lu gën li mën naa am ca booba ñoom jàppoon nañ ne lu gën a baax li mu taam xaaloo safihun li sarfi anhu basari loolu rek moo ko taxoon kon loolu mu doxin woowu nag mu incarné ko di ko dund dundam gep ba fi ñu tok di waxtane di waxtane ba fi ñu tok di waxtane jamono gi ne preuve di gëna am ci ne lu gën li mën naa am. jamono gi ne jamono gi ne alhimma jàngale yitte bu baax baax jàngale lan moy yitte ndax loolu mom la joxoon dene won yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo ne ko rabbi ashabaka bil himma manam sa gaay yi yar leen ci ñu am yitte ba bu ne yalla neena dutu dootuñu yamale yàlla nee na dara bu ne yonent sallallahu alaihi wasallam neena dutu na dootuñu yamale yonent sallallahu alaihi wasallam neena ak dara lu yàlla digle ñu di ko def lu yàlla tere ñu di ko bàyyi. nga xam kon loo yittewoo nga def ko ci ñoom. bu leen jàngal képp bàyyi leen bu leen yar ci am njàng képp bàyyi leen. loolu kon sëñ bi daal di taxaw kon ci Mbàkke Kajoor def déclaration ba nag daara gi yu bari daal tasaaroo ñenn ci mag ñi mag ponkal yi ngay wax tey. nga xam ne dañoo dañoo géeju sëriñ Daara Xasan Njaay ci misaal sëriñ Tuubaa daan wax ne képp maanaam li muy toppe mm-hmm. euh, kuy takk tubéy mënoo ko liggéey yàlla moo la ko jagleel mm. ndax dafa dafa matoon sëñ Masamba Jóob Saam sëñ Mamadou Lamine Gay Jamooy sëñ Mamadou Lamine Gay Jamooy bi muy ñëw sëriñ Tuubaa mm-hmm. maanaam mbokkam yëpp dañ nekkoon foo jëm mm. sa xam-xam bi sa jaamu yàlla gi sa jikko yu baax ji mm. sa jikko yu rafet yi sa lu nekk ñu tagg ko mooy leen dafa mel ni ki daal li la ma leen wax dafa mel ni ki damaa mar mar xundooñ Mhm. yor sama kaasum ndox di ko sirantal gis ku yor géej na ma sotti ñu boole mhm. sotti ki rek laa ma def sotti ki rek laa ma def kon maanaam sëriñ Tuubaa ñi ko ñi ko wëroon mhm. ay ponkal lañ woon yoo xam ne mat nañ waaye rek sëriñ bi dafa xotti baax ma ngoog mu ak ñooñu eh, ñu jógee ci Mbàkke Kajoor sëñ eh, Alaaji Ndiaye Cheikh Ndindi mbokk yi yéen a ngi seetaan eh, seen télévision Futurs Médias ñu nekk en direct fii nga xam ni mooy euh, Touba mosquée nekk ci kër soxna Maymunatu bintu Cheikh Abdoul Ahad euh, kër sëñ Cheikh Diakhaté moom sëñ Amsatu Diakhaté radiyallahu taala anhu nekk itam ci wàccaay yi nga xam ni mooy yoon wi ñu jëmale ci màggal gi ñu mën ni ñun yegsi nañu ñu ngi màggal ak mboolem waa groupe euh, Futurs Médias ñu dalal nag sëñ Alaaji Ndiaye Cheikh Ndindi sëñ Daara ñu tàmbali ci sëriñ bi ak alxuraanul karim gannaaw bi ñu waxtaanee léegi sëñ Pape Anne ak sëñ Mbacke Niang waxtaan ci sëriñ Touba ak tasawuf tasawuf googu moom la àndeek mag ñooñu ñu ànd ak alxuraan ñëw Mbàkke Bawol diir bu gàtt rek sëñ bi tàggoowul ak alxuraan googu ak ni ko fonke woon ak ni mu ci doon liggéeyee ñu jóge Mbàkke Bawol ñëw sanc Daaru Salaam Daaru Salaam sëñ Alaaj dañu ciy jaaral rek waaye nag daara Tuubaa yi moom ma tax a jóg. waaw jërëjëf xam nga Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu. diirub waajuram yi mi ngi doon dund. Mhm. muy Maam nekkoon ci moom mi ngi ci moom. Mhm. Euh, muy màgg. Mm-hmm. yi màgg waaye mu nekkoon ku ku wormal waajuram. Mm-hmm. ku ko jox ab cër. Mm-hmm. ba tax yu bëree bari ci kanamu Serigne Mamor. tàmbali feeñalu ko woon. ci kanam Serigne Mamor Ansali. waaye bi Serigne Mamor Ansali demee nag lu ci bëree bëri ci liñ gën a xam dëgg-dëgg kan mooy Serigne bi. li ko tax a jóg dëgg-dëgg lan la donte moom ak ràññikoom ak ak ak wuuteeg nit ñi jaamu yàllaam jikkoom yu rafet melokaan woo xam ne lu nekk e-, e-, exception la ci. dafa yàgg na ci ràññ ko waaye bi sëñ moor demee na ci lañ ko gën a xam dëgg dëgg mhm. bi nga xamee ne nag léegi wooteem boobu am na nag nit ñi nag di ko dégg wet gu nekk mhm. di ko seeti jamono sëñ Mamadou Sall lañ daal lañ daan laaj doomi sëñ moor Anta sëli ji mhm. sëñ Ahmadou Mbakke Ahmadou Bamba ñuy ñuy wàggee fu nekk ñëw di ko seet ku ñëw mu yëm la waaye ba mu wootee wooteem ba nag ah nit ñi nag daara gi sàq woon na waaye nag nit ñi di ñëw ku seet si xam ne aha kii de li muy wax. Mhm. moo ne moo nekk. Mhm. kii de lim naan lu gën njàngum kese kese kese yor na ko. Mhm. ku takkoo moom ab diir bu gàtt de. wala nga gis koo xamoon. ba mu jaxasoo sëñ bi ab diir da nga xam ne kii moom li mu def si ñoom. moo gën njàngum kese kese. ñu daal di tàmbalee di ko di ko wut si. di ñëw mi di bari. ah sëriñ bi taamu woon yar dafa am ay ay wasaayil ay moyens yoo xam ne. Mhm. boo bëgg moyen éducatif la. Mhm. éducation boo boo ko bëggee mu efficace. Mhm. am na ay moyens yoo xam ne mënu ko ñàkk a jëfandikoo. maanaam environnement bu sell. ci la bokk. maanaam barab bi ngay yare say say nit ñi ngay yar. na nekk ñoo xam ne ñeneen duñ fi jaxasoo. kon ab ab ville dana jafe pour nga. réussir ci ab yar. Serigne Touba radiyallahu anhu bi nga xamee ne mbooloo mi tàmbali na bari mu ne Safed ñëw sanc Daaru Salaam. bi mu sancee Daaru beru la woon. huit mhm. ak ñi nga xam ne ñoom lay. yar mhm. ñoom lay defar seeni i xol ñoom lay defar seeni rox roox. Mhm. ñoom def si ñoom alxuraan ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. huit ak ñoom kenn du jaxasoo ak ñoom. daara yi képp dongoy daara yi képp. xaaj ko ay xaaj. incha allah daal ci ñëw ci Touba. sëriñ bi nekk foofu diir ba mu fa nekk. ba yàlla dogal ni ko waxee sànq mu jugee fa doog ñëw Touba. waaye sëriñ Abdul am na lu mat a bàyyi xel. Mhm. ba muy jógee Darou Salaam di ñëw Touba. kan la jox Darou Salaam. maam Cheikh Anta la ko rafaatale maam Cheikh Anta. Mhm. rafaatale kat boobu maam Cheikh Anta juróom-ñeent fukki oh, ñeent fukki taalibe ak foofu laa jëm si boobu maam Cheikh Anta 18 ans la am. Mhm. borom yi jamono jii. ba léegi yaakaar ne ne maanaam dara waru leen. maam Cheikh ñu jox ko ab dëkk. ak quatre-vingt-dix-neuf taalibe mu nekk responsable boo xam ne léegi mbir mi ci loo xam ne nekk ca a fi ne Daaru Salaam a ngi nii tubarkal wallaahi ay bind la maanaam mm-hmm. ndaw que sëriñ bi sëriñ Tuubaa waxtaan ci moom mm-hmm. ñenn ñi dañ ko jox dimension ci wàllu âge boo xam ne dañ yaakaar ne am mm-hmm. màggat la woon déedéet bi muy def lii lépp ndax Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor boobu bi muy def lii amul amul amul amul fanweeri gannaaw ma ngo gannaaw sëñ Malanta eh? Sali ñaar fukki juróom-ñaar ah, jàpp fanweeri ñëw na sanc Daaru Salaam amul amul amagul fanweeri at fanweeri at ak ko kooku kooku sëriñ bi ci ci ci taxawaay ambition bi teel bu koy da ngay yaakaar ne mag la woon moo xam ne déedéet. ca fekk na moom pas-pas ba ak dogu ga ak yitte ju kawe ja moo ko may li mu am. ñi mu yaroon it ci maam Cheikh moom ma cité day gis sa misaal mboolem ñi mu yaroon it pas-pas boobu ak ak ak melokaan woowu dafa nekkoon ci ñoom. jeexital ci ñoom nga xam ne boo jaxasoo ñoom daan xam ne wut nañ koy jàng ay xotti kese kese. duñ duñ bokk yitte yi duñ bokk. Serigne Touba radiyallahu anhu nag ba daara ji xumbee mu ne Sefeet ñëw Touba Touba Serigne Abdou Khadir nekkoon pàkk boo xam ne Serigne Touba yàgg na koo yittewoo. yàgg na ko bëgg di ko ñaan boromam subhanahu wa taala dante daj lu ne ngir ngir ngir ngir ngir jot ci waxoon na ne sama dëkk bee de ñaar rek tax ma sajj ko daw nit ñi ak daw li ci loxo nit ñi ba ma fa àggee ñaar rek laa fa fekk mm-hmm. muy wind ak saawo mm-hmm. ba mu ne fa jàng ñaar rek moo fa fekk muy ku yàlla rek ñor muy wut yàlla mm-hmm. ak ku adduna rek ñor muy mbubboo yàlla te ñoom ñaar kenn jaaxaluma ci ki yàlla rek ñor dinaa ko womat ba teg ko ci yoonu yàlla ko mi ki jox na ma adduna ki soxlawuma ko dinaa waaye bu yomal xiyaamee ne lu ma yàlla jox néewoo bari bu ma ci xool yi bët ndax lañ seqoon jox naa ko muy àdd mm. daal ne ku nekk si yéen nag xam nga ki nga ci doon Tuubaa mm. googu mu ñëw def ko daara mm-hmm. daara ji nekk ñetti xaaj mm-hmm. daara alquran ji mm-hmm. ak daara xam-xam ji ak daara tarbiya bi ñetti daara yi bokku Sëriñ Tuubaa fu mas nekk ñetti daara yi ñu ko wër daare alquran ji tout tànk yi xam ne ñoo toll ci jàng alquran ñoom ñoo fa nekk ñu leen xamal bi subhaanahu wa taala daana wax njabootu boppam koo xam ne ku ko jàngal alquran mu mokkal alquran. Mhm. sàggane ko ba mu ñàkk koo mokkal daan fëgg suuf si daan wax naan kaw suuf sii ñu nekk lu ko jar néew fi. wallaahi koo xam ne. Mhm. ku ko taxaw mu mokkal alquran. Mhm. sàggane ko ba mu ñàkk mokkal alquran kaw suuf sii ñu nekk lu ko jar néew fi. koo xam ne nag seen ngeen ko ba am xelam naqari ba mënut a jàng. ndax xel mu naqari. jàngal leen ko surtout mulki ak suuf mu tabaaraka ak suuf. ngeen jàngal ko ay farata yi jëmmam mu defi leneen. kon catégorie goog ñaareel gi. Mhm. ñu ñu war a yar ñu dem ci tarbiya gi. ñu ñu ñu tarbiya leen. ñu mhm. ñuy jàngal xam-xam noonu. Mhm. tarbiya googu dañ ci ñëw ci kanam incha allah xam naa bu ñu ko waxtu mayee. ci méthode bu efficace bi mu daan tarbiya mag ñi xam ne. tomb yi yooyu dañ daan indaale tomb waaw dañ daan indaale ay ay ay ay yoo xam ne yaakaar na ne kenn. maanaam programme éducatif. programme éducation bu bu bu bu bu bu. bu traditionnel bi weesu na ci maanaam maanaam ba léegi programmee yi loolu. kooku maanaam suñu classe gi bu ñu bëggoon a dugg tey ñu ñu maanaam ne woon lëng hmm. suñu classe gi jàpp ne ku ci ku ci ku ci eh, ku ci eh, jubut hmm. maanaam jeex na maanaam weesu nga weesu nga defar te fekk mën na nekk Sëriñ Tuubaa moom moom ñooñu ci boppam hmm. da daan defar ba Sëriñ Hadi Touré daan wax ne ku Sëriñ Tuubaa defar ba bàyyi day mel ni ki boo jëflanteeg moom da ngay daal di gis ne donte jàngutu araf moo la dàq jëfe li ngay jàng yow yow mu jàng <coughs> mu daal di xaaj ñett daar yooyu amoon ay ay ay partenaire nag. Mhm. yu jàmbaare sëriñ Dame Abdourahmane Lo. yor daara alxuraan ji yor daara alxuraan ji sëriñ Mbacke Bousso. Mhm. yor daara xam-xam ji rakkam ja. Mhm. sëriñ ma Thierno Ibra taxaw ci wetam. nga xam ne musa réeróog moom wuteeg moom ci genn wet. lu nekk ci moom sëriñ Tuubaa ko def. ak mag ñi ko waroon. bu buñ doon lim mën naa bari lool. waaye ñu encadré maanaam sëriñ bi encadré leen waajal leen. ba li ñu war a doon ñu doon ko ñu di ko jàppale la ci liggéey bi. Mhm. ba li am lépp sëriñ Abdou Khadir ci loolu la amee. da di am muy daaray Touba yi daaray Touba yi itam ni nga ko waxee léegi li ci génn bare lool ndax euh, sëñ Dame Abdourahmane Lo li jaar ci moom ci ñu jàngal alxur jàng alxuraan mokkal ka waaye tarbiya bi sëñ bi defoon ci ñoom boo jëlee ku na maam Borom Saam euh, sëñ Dame Abdourahmane Lo mi nga tudd léegi nga xam ni sëñ bi ni mu ni mu ni mu leen. tarbiya woon tax na dañ daan naafila alxuraan sëñalaa ji boole ci bu nu xëyee di jàngale loolu loolu ban jàngat nga ci mën a def diggante mag ñooñu ak alxuraanul karim xam nga Serigne Touba radiyallahu anhu moom dafa séxañaloon maanaam alxuraan da ko ci mag ñi mhm. seen cër mhm. daf koo def ci ay anam yu wuute mhm. daf koo def ci wane wane moom moom digganteem ak alxuraan ne maanaam wane ne man daal lu ngeen may naw yéeme ci téere bi laa ko mus am leneen lu gën téré bi wane ko mom ak ak ak takkook téré bi nga amul ben programme amul soxla lu téré bi wane ak bëggam al gu jigg dayo yar ci mag ñu nekk ci loolu magam ju bax jooju nga tudd léegi Mamor Borom Sam serigne bi wégon ko lool ngir melokan yi nekk ci mom mhm. wégon ko lool ngir xam-xam bu bari bu nekk ci mom wegeen ko lool ngir jikko yu sell yu nekk ci moom. Mhm. wegoon ko ngir kilifaam la. Mhm. Serigne Touba di laanu. Mhm. kilif teefu mageel goog Serigne Mamor borom saam. mus cee dindi dara dara lu toll dara fa tàng. lu mas a def daf ci diisoo ak ma Serigne Mamor borom saam. lu mas a def rek da ciy diisoo Serigne Mamor jaara borom saam. sëñ Mor sëñ Mor ko cër bii itam. nangul ko cër baax a baax. Serigne Mamor jaara. mbaax ci moom lay am. ki bu ngeen bokkee nga mag ko. yàlla jox ko loo xam ne da ngay xam ne lii yàllaa ko ko jagleel. Mhm. nga nangul ko ko ngëm yàlla foofu la yem. nangul yalla foofu la yem. Mhm. Mhm. jikko ju sell foofu la yem. jikko ju sell foofu la yem. sëriñ Mamour Diarra lii la nanguloon sëriñ Tuubaa boo ñëwee sëriñ Daam Abdourahmane Lo ci misaal mais suñu ci misaal moom moom. daan nafila alxuraan ni ko waxee ba noppi xëy jàngale ji alxuraan. nafila alxuraan daan ko def ñaari ñaari rakka. kaamil bi mu def ko ñaari rakka. boo koy wax ñenn ñi dañuy yaakaar da ngay lépp. ñenn soo koy taxaw fii di ko wax dañuy yaakaar ne yow loolu ay lépp la da ngay lépp. Mhm. loolu la ñuy yaakaar. Mhm. waaye day wallaahi ñaraw raw nañ ba faw wallaahi ñaraw raw nañ ba faw ña laxasaayi woon mhm. wane ak njàmbaar liggéey liggéey ba kenn dem def ba faw loolu kenn dem ñenn ñi daan kër naafila ci téeméer téeméer rakka téeméer rakka téeméer rakka sëñ Daaru Asan Njaay dafa am kilifa bu ñëw ci Sëriñ Tuubaa di laa an du ma tudd turam ci mag ñi Sëriñ Tuubaa ne ko yow loo looy naafila waxul weeru koor de looy mm-hmm. naafila ci jour yu ordinaire yi. Mm-hmm. mu ne ko man de daan naafila ñaari sëb ñaari sëb ak nisf mooy li ñuy naafila ci weeru koor ci jumaa yi. ci jumaa yi waaw jumaa yi mm-hmm. ko hee hee yow loolu defe naa xamoo ne naafila jigéen la. ci alhamdulilah. sëñ ko yow de hee hee loolu xa naafila jigéen la ñaari sëb ak nisf naafila jigéen la. Mm. weesul foofu. kon moo ñu. nga xam ne te loolu yëpp delluwaat ci yitte gi xam nga ci yitte gi ñu mhm. eh, ku nutul sa bakkan. Mhm. doo ko mën ku nutul sa bakkan doo ko mën. doo ko mën Serigne Mbacke Abdourahmane yal na ko yàlla taxaw ci sàmm ko. Mhm. amiin dafa jàngalee aslamtu nafsi ci anam goo xam ne barki dem masaan ko fan yii ci benn ci RTS. lu am solo Serigne. maanaam jébbalu. ndax ndax ndax lu lënt la ci ñu bëree bari. mu leeral ne kii jébbalu bakkan bi lay jébbale bakkan bi nga xam ne mooy al amaara bi su mm. lu bon rek lay diglee mm-hmm. day jël bakkan boobu nos ko jébbal ko ki nga xam ne docteur bakkan la mm-hmm. ngir mu tàggat ko ba mu nekk an nafsul ra a an nafsul radiya an nafsul mardiya waaw mm-hmm. nga ne mu génne ko ci étape mu ne woon tàggat ko ba ba ba mu nekk baax di parfait Serigne Touba nag bokkoon na ci li gën a efficace li mu doon tàggati nit ñi mooy téere bi di alxuraanu karim Serigne Serigne Serigne Abdou mu dëkkook euh, téere bi sëñ bi wax ci ay bayit yu bare bare malaka nii xuraanu raafaxa nii xuraanu dem ak kitaabu rabbi kaane lii wakuntu la walilaahi bii sakantu yooyu yëpp muy ay ay ay daraja yoo xam ni digganteem ak alxuraan ak ni mu fonke woon alxuraan ak bi nattu bi yegsee ci moom ni mu doon jëflanteek alxuraan ba sëñ Moussa Ka sax yaakaar naa ni am na bayit bu muy wax bayit bi ci jawartu eh, naan eh, bayit bi moo mag xasit ak jawartu mm-hmm. yaakaar naa ne loolu yëpp lu ko sunu borom defal ci alxuraan la ba moo fi la tey jii daaray alxuraan gii ci dëkk bi kërug alxuraan nga xam ni boo doon wër addina bi yëpp doo gis kër goo xam ni gu toll nii nga xam ni tey jii valeur am ëpp na ay milliards ñu jagleel ko alxuraan karim sëñ waaw loolu nga wax sëriñ bi moom lu ne wax na ko alxuraan. lu ne lu ne lu ne wax na ko ci alxuraan. xeetal nañu ci ba tàyyi. bu dee diggante alxuraan. wax na ba tàyyi luy wane ne moom li mu am ci alxuraan am na xasida gu muy wax naan kitaabuhu saanani an kulli mafsadatin wa kaffa anni al adha kama mahadadani téere bi yàlla bii de di alxuraan moo ma ñoŋal moo ma protégé ba lépp luy yàq du ak si man wa kaffa anni al adha lépp luy lor lu waay mën a préparé ci ay lor ak i métit ak lu jëm ci man na nga xam ne du ak si kama mahadadani ni mu fare samay bàkkaar nan an nii wa diini wa aadaati bihi saluhat bihi unabbihu ahli asal mi wasani. nee sama xam-xam ci téere bii di alxuraan ci la rafete samay aada ci alxuraan ji la rafete añ mi wa sama diine ci alxuraan ji la rafete nee ci laay yee ñooñ jamono. ci laa li naan pëkk pëkk ngir ñu jug ki kuy nelaw ma yee ngir nga yew nee na alxuraanu karim mooy sama xarit. kitaabuhu diini. وهو خلي كتابك ديني وهو قلي ومونسي هداني به الهادي ونفسي به زكا nee na sa téere bi yow borom bi subhaanahu wa taala na nga xam ne man mooy sama diine sa téere bi yow borom bi subhaanahu wa taala mooy alquran na nga xam ne mooy sama xarit sa téere bi yow borom bi subhaanahu wa taala na nga xam ne mooy sama wéttal ba muy nekk ca Gabon nga xam ne mujj na maanaam gisul kenn kuy wax alquran yi wéttalam wa muunisi hadaani bihil haadi ci téere bii la ma yàlla jubale wa nafsi bihi zakka bakkan bi nga xam ne ku fexe ba mu set da nga am li nga bëgg sama bakkan mi ngi sete ci lan ci alquranul karim wax moom bor Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ne kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi ñaar rek am ci àdduna li ngay bëgg di ko wut ak li ngay ragal di ko daw Sëriñ Tuubaa nee lu may wut lu ma bëgg di ko wut ci téere bi laa koy wutee lu may ragal di ko daw ci alxuraan mi la koy la koy la koy do mu do sama diggante ak mom dem ba muji muy wax ne mom Serigne Touba radiyallahu anhu di xeetal nit ñi nak ci ci alxuraan. di xeetal nit ñi ci alxuraan. ngir ñu bëgg alxuraan. nan qultu wa may yurid ridar rahmani falyusbit an tadabbur alquran ay way mané man ahmad bakki kep ko xamne da nga bëgg ngërëmul borom bi subhanahu wa taala na ngay jàng alquran di ko setantal. نن ومن أراد القرب من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه كبر جعبران بسبحانه وتعالى نعى جنگ القرآن الكريم جعوف بقفت nan kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilawatan li xayri dikrin qad rusim képp koo xam ne nee nga maay sa jëwriñ ci tool bi islam bii na nga fexee na nga saxoo jàng alquran waxul jàng tey bu subaa nga bàyyi waaye na nga saxoo yow jàng alquran karim mm. sëriñ bi nu ne nu ne nu ne nu ne nu mm. ne nu ne wax na ko alquran inna tilawatal kitaabi mulk mm-hmm. wa huwa li may yabxi najaata fulk nee na alquran karim de ku bëgg nguur mm-hmm. del jàng alquran mm-hmm. nee na koo xam ne da ngaa bëgg a mucc del jàng alquran karim kon wax na alquran waxe na ko waxee na ko lu ne waxee na ko waxee na muy wax ya wax na ko waaw xadru sim lu ne ne wax na ko waxee wax na ko ci alquran karim ngir ngir ne non bihi yuhibbuni labib labib wallahi ne non kumay beug ci alquran karim ngoy beug ne ne won woon bihi uwaali wa bihi uadi ci alquran lay beug nit ci alquran lay bañee nit kon manam mom nu ne nu ne serigne touba wax na ko alquran ne ne jàng alquran day kukoy def am nga ndambu manam am nga kenz mhm. am nga copper for am nga mhm. compte banque bo xam du jeex buk mhm. kon limu wax ci alcorane kenn xamul num toll dundum jep serigne kenom ak tonom lepp moy alcorane lepp alcorane كنز الكتاب والحديث والادب لا جمع فدة ولا جمع ذهب سما سما كوبر فور سما كونت بانك موي القران الكريم موي حديث يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا دنج اي خالص تخمونو جوك دنج اي ورس تخمونو جوك تريزور موي القران الكريم دونم جيب mu di ko ñaan yàlla mu def ko mu sam sàmm alquran wajaal bi jahil muntaqa hayati riayat alquran dhil ayat ma ngi lay ñaan yow borom bi subhanahu wa taala ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama dundu gep bu mu weesu leen ne moy sam alquran karim kon Serigne abdul khadir Serigne Touba radiyallahu anhu ni mu sàmme woon alquran ni mu ko don waxe non la ko don defee borom bi subhanahu wa taala danoon inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la yàlla moy alal alquran ay wasail day am bokk na ca wasaa'il ya ay doomu aadama yoo xam ne ñoo sàmm alxuraan sëriñ Tuubaa nag nu ne sàmmee na ko téere bii nu ne. waaw ah, loolu ci la ñuy ñëw sëñ Alaaji ndax euh, ni mu ci doon soññi biir bi mu nekk fii dem ci tukki bi. ci soññi bi nga xamee ni dellu si waat yeesalaat daara yi bu baax a baax ci diggante bu gàtt bi mu fi nekk diggante 1902 ak 1903 mu dem gànnaar gànnaar nag sëñ Alaaji sëñ bi yamatul ci soñ ñu koy jàng waaye mu soñee nag. daare kaamil googu xam ni ba tey jii mi ngi Tuubaa nga ñëwal nu ci. waaw mooy li wax ci daare kaamil benn xeet la. Mhm. ci ak sàmmam alxuraan. Mhm. muy wut ak kuréel goo xam ne. Mhm. amatuñ menn métier lu dul. jàng alxuraan mu warlul leen seen lépp. maanaam ba fii ma fii ma toog. ba fii ñu toog. waxuma amul. waaye xamaguma ci àdduna. xamaguma ci àdduna koo xam ne. danga ngaa wut mbooloo moo xam ne suba ngoon jàng alxuraan seen métier. Mhm. xam ma ko. Mhm. xam ma ko waxuma amul de mhm. amul moom ku da ku wër adduna bi ba mu daj yaa sañ a wax nangam am na nangam amul. waaye sañ na ma wax ne ba fii ma toog musuma koo jàng ci téere. musuma koo seraan ci télé musuma koo dégg ci rajo. musuma dégg ko gis ne gis nañ koo xam ne mbooloo lay wut. moo xam ne jàngal alxuraan la ñuy xëy. di ci gont amuñ ma métier. ah bés bu nekk ñu saxal juróomi kaamil. mooy loolu mooy gunge waxtu wi. Mhm. sëriñ Tuubaa mboolem waxtu juróomi la doon def waxtu wu ne dana ko gunge ak kaamil. Mhm. mboolem mi loolu lañ jariñ. Mhm. waxtu wu nekk dana am ñu ko gunge ak kaamil. gannaar sëñ Abdou Khadir xam ne képp koo dégg maa moo dégg ne dem na fa jàng moo na alxuraan mokk na alxuraan sëriñ Tuubaa dana woon ku mukkalul alxuraan bu ma fekk. kon daari kaamil. foofu na tàmbalee ñëw fe njaareem. mu ñëw ci yéen ñëw njaareem. ba Touba gi foo dem penc moo dem daari kaamil farat la mboola moom nekk ci jumaay Touba nekk ci jumaay Njaareem. penc yu bare bari ci Touba ba fi mu nekk nii Njaareem loolu sax ma fa loolu nag ak anam la ci. ci sàmm gi tey sàmm gi am na leneen lu mu ci wane sëñ Alaaji mm. muy nettal nañu ci atu njaareem yi mm. euh, xëy na benn weeru koor yaakaar naa ne ci seenu bu jëkk wala xëytal weer wi weeru Shaban la woon mu mu mu am lu mu bëggoon ci alxuraan waaw booba mm-hmm. sëriñ Mamadou Lamine Diop daga na moo ko nettali mm-hmm. nee na sëriñ bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru baraxlu muy weeru Shambaan. Mhm. la génn. Mhm. ŋàbb ci ñaari loxoom ya sëq kayit di ko say saye mhm. daal ne mag ñi ndax lii xam ngeen li ma ci bëgg. ñu ne ko fas yéene mbàkki loo ci mën a bëgg fas xam ngeen li ci bëgg ñu ko fas yéene mbàkki. mu ne tey la ñaata fan ci weer wi ñu ne ko tey ñaar fukki fan ak juróom-ñaar. mu ne damaa bëgg ba leen ne taafeere weeru koor ñetti fan a ci des. ba leen taafeere weeru koor ngeen jox ma ab kawin. mag ña seddoo kayit ga. ku ne kii ne may tàmbali barab sàngam barab sàngam kii ne may tàmbali barab sàngam barab sàngam ñu woon ginnaaw sëriñ mhm. fanweereelu fan ba ñu ñëw jébbale si kaamil ba sëriñ Mamadou Lamine Diop nee na la gën a mhm. yéeme si kaamil mooy mhm. passe bu widd a ci passe bu widd maanaam maanaam passe blanche amu ci lépp dañ ko remplir maanaam dafa mat te kenn ci boo xam ne kenn bind ko dañ ko séddoo sëriñ bu xaadir am na lu gën a loolu am na benn bis boo xam ne dane damaa bëgg aw askan woo xam ne dañuy bokk wenn sant. Mhm. juróom benn fukki góor yu bokk wenn sant. Mhm. ñu bindal ma ab kaamil tay tay ci ci benn bés. yàlla dogal waaw maa ngi nii bii nii maa bi ko faadis yàlla mhm. dogal sama maam ca la bokkoon. ndax ci askanu njaayeen la ko amee woon. benn ba léegi daara jaa ngi nii ba léegi daara jaa ngi nii ñun dañ koy màggal. daara njaayeen ji ba léegi dañ koy màggal ngir loolu. ngir loolu. ngir lan tera lu rëy la. be waaye sëñ bi benn benn bés benn bés bindulu kaamil ci benn bés. ba léegi gisaguñ ko. waxuma machine yi de ay doom aadama yu la toog bindal la kaamil ci benn bis mhm. ci Serigne Touba lañ ko mas a déggee ci lañ ko mujj a dégg mhm. waaye loolu mooy ak sàmmam alxuraan damay wax ne sàmm na ko ci mhm. jàng ko Serigne Touba foo masaan maa ngi nee nañ foo masaan bëgg xamee fan la Serigne bi toll da nga boo déggee dënd bay riir fu mu toll da alxuraan kon sàmm ko ngir ko sàmm ko ci jàngale ko sàng ko ci bind ko bind ko ci loxol boppam sàmm ko ci jàngalu ko sàmm ko ci bindulu ko am na kuréel yoo xam ne jàng alxuraan dong la daan liggéey muy daara kaamil yi mhm. am na ñoo xam ne bind kaamil képp la daan mhm. liggéeyee kaamil bu àgg ñu indi beneen jël ñoo xam ne jafuri la ñuy defal ngir du ci dugal kaamil yi ak lal yi nga xam ni moom la daan waajal ngir mu teg xam ni dañuy nekk ay doomu soxna waaye mu leen di defarloo ay lal mën nañ ci tudd sëñ Cheikh Fatou Tacko Diop dafa inversé woon sëñ Massamba Diop Sam mu koy inversé woon mbir yi mu inversé waaw maanaam ni nit ñi gémme woon affaire waaso mhm. ay ay ñi ay kasak yooyu waaw kii géer la kii ñaño la kii moom sëriñ bi dafa doon dafa doon fexe loolu dañ. Mhm. fekk doomi soxna mu awloo ko. Mhm. fekk doomi soxna mu tëgguloo ko. Mhm. fekk koo xam ne nag maanaam ca ca gannaaw moom lañ daan jàpp ne fees dong la war a liggéeyee. mu jàngal ko ba ne ar. binduloo ko kaamil ay ay kaamil. di ko binduloo ay kon sëriñ bi loolu liggéey na ci liggéey bu rëy. waaye yëmut ci loolu mooy sàmm sëriñ sëriñ Tuubaa sàmm na alxuraanu karim it. ci maanaam teral ko. ak teral ñu ñoom. sëriñ bi mus san mus maanaam da amul lenn lu ko doomu aadama mas a jox lu mu nangu amul loo mas a jox sëriñ Tuubaa ci wet tegal foofu la lay wax mag ñi ne nañ saa njaareem saa bu ngelaw masaan am dañuy daw njëkkante ci kër sëriñ Tuubaa ga ndax xaalis bi dañuy xam ne day naaw amul sa am soxla ci xaalis alxuraan képp la doomu aadama yi ñëw saa boo ko yoree bu ne bërit boo ko wutee mu ne bërit gàttanu la nangul ko boppam tadafu la teral la ci misaal Serigne Moussa Alima Gueye dama ko tudd lu bari. ndeysaan nee nañ bi muy ñëw ci ku baax ki radiyallahu anhu booba booba tuut tànk la. Serigne Moussa bu mag ma walaay mokkal mokkal mhm. ne ko nan la def ak téere bi bu ma saan wax téere bi rek alxuraan lay wax. Mhm. mu ne ko ah de moom mokkal na mu ne ko bismillah mu tàmbali alif laam mim zaalika kitaab bi muy àgg ci al muflihoon ji. Mhm. Serigne Touba ne ko wax nga dëgg li nga wax seereen li ci des. Serigne bi dafa jël Serigne Moussa Alima Gueye ci tuut tànk gi. teg ko ci da daal di ko teral ku accès mu ne la bis ngi tey kat maa ngi leen xamal ne damaa am gan gu tedd bëgg ku ma ko terale hmm. damaa am gan gu tedd gan gu màgg bëgg ku ko terale hmm. daana wax ne bu ma tëjoo dégg naa mës nañu wax sax sëñ Moussa moomu dogguma la mës nañu am neen Moussa mu fa nekk euh, bi bi ko sëñ bi di woolu ñu jàpp ni sëñ Moussa mu mag moom sëñ bi ni leen Moussa moomu mokkal alxuraan mooy mu mag ma waaw <laughs> sëñ Tuubaa daana wax ne hmm. ndaw lu mokkal alxuraanul karim xam ma sikkam ca mu kenn wax ndaw lu mokkal alxuraanul karim daana wax ne xam ma sikkam ca bu ma kenn wax sikkam daana yónni ndaw mu ne bërët bëgg daw mhm. mu ne ko dalal ndax da diis mhm. ku alxuraan nekk sa dënn da diis mhm. daana toog xool nit ñu ne ñu diw ca waaroom mu ne na ñëw alxuraan du nekk ciw naaj bu ñuy bay alxuraan tax daana wax ne bu ma tëjoo ba ne kenn mënu maa gis na ngeen xam ne alxuraan taxul may wax bu ñooñ alxuraan ñi ñëwee ni leen ubil bu demee ba nga xam ne nekk na ci nag jaamu yàlla képp lay doon daa wax ne bu ci àggee nag ku ñëw ah, kooku alxuraan ku ñëw diw ak diw ak diw na ngeen ma ko yoral di ma ko teraal di ma ko teral ba mu génn mhm. ngir fonk alxuraan ngir fonk alxuraan karim mhm. daana wax ne yomal xiyaamat akbar ku bañ ma añ wàcc la na nga dal sama waari sama waari mu alxuraan karim bustaani kitaabullah mhm. te te sëñ Alaaji am na lu ci yàlla defaloon loo xam ni moom it dégg mësuñu ko dégg ci kenn euh, sëñ Abdou Lahat radiyallahu anhu na nañu diggante sëñ bi ak alxuraan yaakaar naa ni bu dul màggalu 87 wala 88 waaw ma ngoog wax ni ni mu digganteem ak alxuraan tolloon na ci moom ba bind nañu kaamil daa dee xam na dëkk ba mu jógee ak turu këkk bind ñëw jébbal ko ko bi sëñ bi jëlee kaamil bi teg ci dënn bi dégg nga lam ca teg dafa ne benn sàdd kasalatun bi ci suratul baqara képp la ci fatiha sadd sëñ Abdu Lahad daa din te wallahi biñ ko ubbee noonu la loolu kon jagle gu ko ci sunu borom defaloon la ci alxuraan ak tey jii ne fi ñuy jeexale ndax li ci des barewul li ci yàlla faye nag li ci yàlla faye am na loo ci junj léegi muy daal kaamil yi nga xam ne sax na daal kaamil gi waaye njabootu boppam gi tey jii ba bët ki démb Cheikh Seydil Muxtaar ni mu déglee njàngum alxuraan nga xam ni sànq bi ko sëñ Maam Mor di leeral kenn xamul li mu kaamilu alxuraan yi nu jàng ngir gàttandoo ko ngir terale ko bésam bu mag bi yii dina sensé wuñ ko waaye mhm. jamono yi sëñ Saliou day mhm. jàng nañ ci benn bis lu ëpp vingt huit mille kaamil ci benn bis ñaar fukki junniy kaamil ak juróom ñett jàng nañ ko ci benn bis mhm. li ko yàlla terale mooy del xool Touba néewaana tout tànki Touba. Mhm. nii waa na koo ciy fëgg ca dënd ba alxuraan néew mhm. ni ko yàlla tere la it ci alxuraan. Mhm. mbindam moomu tey. ba fii ne. adduna bi néewaana fooy dem moo tax ma bëgg mu damay faral di wax dañ ko war a sàmm. adduna bi néewaana fooy dem fekk ko fi nii Abdourahim wa Ali Basfar. moo jiite mooy aminul am li hayatul alami la tahfisul Qur'an al karim. nekk Saoudia. bi mu ñëwee fii. mu kuréel gi gi saytu alxuraan ci àdduna bi. ca nekk mm. Arabie Saoudite bi mu ñëwee fii xool ni ñuy beqee di ko bind ci àll woon. ni ñuy mm. bind kaamil dañ man de lii wër naa àdduna bi fu ne dem naa fa waaye lii fi laa ko mas mm. mu ci jagleeg jagleeg sëriñ bi. Mm-hmm. mooy sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu alxuraan nangul na ko maanaam. ni mu dëkkoo woon alxuraanu karim. Mm-hmm. ni ko alquran indilee lu ne mu ne mu ne alquran defal na ma ko ci ay xéewal ci ay teraanga ci lu ne ba léegi loolu loolu mooy wéy di am mm-hmm. nee na alquran defal defal na ma lu ne mm-hmm. na ma lu ne mm-hmm. ci la ci sama darage ci la yëkkatikoo ci laa kawe ci laa màgge ci la sama xel ñawe lu ne lu ne lu ne lu ne wax na ne alquran ko def ko defal te dara warul lu may taqoo gi dund ji alquran dundal ji alquran fonk ki alquran sëñ Abdou Khadir naa la nett lu yéeme ku baax ki am na bis boo xam ne sëriñ bi bañ moo ko nekk. ana am na bis boo xam ne dafa dafa dafa bind maanaam di banque tànk yi ba càgg bi xaw a mel lu toqi mhm. sëriñ bi di ta xaw a tàllal tànk yi. bi muy tàllal mhm. tànk bi cat tànk bi wuti ab kaamil. sëriñ bi kaamil bi tànk bi xaw a tàlli wuti kaamil bi sëriñ mel ni lu tiit dafa jël tànk yi rek dóor ko ci permis mhm. nga xam ne permis dafa rocc tànk yi muy nàcc. ngir rek. kaamil bi bi tànk bi xawoon na xawoon na xawoon na ndax warma bi mu ko jox ngir warma bi mu joxoon alxuraanu karim loolu mag gaay gi mu joxoon alxuraanu karim yëkkati gi mu joxoon alxuraanu karim darage gi mu joxoon alxuraanu karim loolu kon daaj lu ay lal di jënd lu ay lal fu mu gën a rafete teg yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa xalili wa xabla kunta tabibi wallaahi wallaahi yaa sama xarit yaa sama docteur هو شفاء من كل داء وانا لمن علي اعتمد والله ومن آه. اباغت لداء آه. زاسه والله وخليل وحبيب لي مخني طبيب به يحبني لبيب يدلو بخير يا خير ذكر زتلا نوني نوني نوني سيرين عبد القادر إيه، لي واخ سانك رك سيرين توارا دي لانو لوني واخنا القران والله والله لوني واخنا القران لوني واخنا القران والله كون خمنا سيني لاجي فوف لا ني جيخال نخ بوغون نيو صاح تي نجابوتام غي نين كا تي ووتو ak daara yi nga xam na ni bu ñu tuddee rek kiñ ci mujj gis. Euh, Cheikh Saliou radiallahu anhu bu yàggu rek maa ngi ciy waxtaan ak sëñ Jawa Balla Gueye nga xam ni lu jege ñetti junne kaamil ñetti junne ndongo jébbal nañ ko Xelkom rek de daara koom rek yaakaar naa ni 2850 nangam la moo waxoon ñoo xam ni jàng nañu koom ndax ku nekk xam nga ne Xelkom yàggul bind kaamil ba ñu topp ko ba mu wow koŋ ñu ñëw jébbal ko sëñ Saliou kon loolu doy na wax dëgg yàlla te kooku mooy doomam ji nu mujj gis waxuñu nag ñeneen ñi nga xam ni seen lépp dañ ko jeexaloon tàmbale ak Cheikh Mamadou Moustapha ba ci ñëpp kon sëñ Alaaji lan ngay tàggoo waaw réseau mouridisme jox alxuraan moo koy moo koy moo koy alimenté alimenté <laughs> ma ngoog mhm. foo fekk lu lu lu lu nuru lu ñuy tudd leneen mhm. ci alxuraan néew ca déedéet ilallahi ilallahi mhm. bil qur'ani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla wal xalbu qash wallahi law sirtu bil qur'ani nee na moom man de alxuraan man waaye nag fan ngeen di jaare mooy alxuraan ak sunnaam bi nee na lu lépp ci laa koy soppee ba lépp jaar yoon mhm. lépp ci laa koy soppe ba lépp jaar yoon sëñ Abdou Khadir bi tomb bu am solo bu baax a baax di leen gërëm di sant ñëpp di sant ñi nga xam ne ñooy doon topp ci jotaay bi eh, di ñaan borom bi subhaanahu wa taala eh, mu liñ doon wax lépp yàlla na jëmam ji rek tax yàlla nañu ci jural njëriñ ci yàlla na ko nit ñëpp jëriñoo bis bi nga xam moom la ñu dëgmal muy bisu màggal yàlla ci àgg ak jàmm eh, ca jëriñoo ko war a jëriñoo mooy borom bi subhanahu wa taala bu nangaloon yalla mm. bu yàlla tegoon ay nattu ak tiis bis bi nga xam ne mooy bisu màggal googu mu jël ko def ko bisu sant yàlla ndax li mu am lépp ci la ko ci la ko am bu agsee rek li mu ko digle woon mu jàng alxuraan eh, ak di berndeel berndeel ñaari berndeel la berndeel roox yi yaram yi ñu fexe ba góorgóorlu ci baax a baax bari na ñoo xam ne léeg-léeg ñu màggal si ba ñëw gi xewoon maanaam mm. lekk nañ fi naan nañ fi waaye nag dégguñ fi daanaka lu la mm-hmm. ne am nga ay da nga am ay gan am nga responsable ci loolu mm-hmm. góorgóorlu baax a baax ba taxaw leen ñoo ngi ci sant bu baax a baax eh, comité d'organisation bi mm-hmm. eh, Serigne Bassirou Bakk Abdoul Khadir di sant it waa Rawdu Rayaahiin ñoo bolé ak yéen sëriñ Abdou Ahmadul Badawi ñu Cheikh Amadou Fadal mi nga xamné mom taxawayam rafet na lool ak mbolé mbokk yi nga xamné ne ñoo ko seqal ñep ñu leen sat leen gërëm alaykum wa rahmatullah jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ alaaj Ndiaye Cheikh Ndindi sëñ Daara euh, sant bu baax a baax di jaarale cant gi itam jëmale ko ci ëtt bi nga xam ni falaa la yëkkatee damaa ñëw rek siif la euh, ci euh, kuréel gi nga xam ni nga ko waxee léegi Rawdu Rayaahiin ci njiitu sëñ Ahmadou Badawi Mbacke noonu laa siifee itam ki nga xam ni moo di sëñ Mbacke ñang te xam na ni itam saa su télévision Futurs Médias soxla naka jëkk at mu jëkk ma sëñ Maaw Cissé mi doy na ci seere sëñ Sam Bousso moo nekkoon coordonnateur coordonnateur groupe bi fu ñu soxlaa borom xam-xam mu war a ñëw leeral ci fànn bu mu mënti doon rek ci wàllu liggéey bi Euh, wax dëgg yàlla raw du yaaxin euh, pare nañu jekk nañu pour ànd ceeg euh, li nga xam ne mooy groupe Futurs Médias li daal mooy li nga xam ni moom la leen seen télévision Futurs Médias indiloon tey jii ngir gàttandoo ko bés bu màgg bu tedd bi indil leen tasawuf bi nga xam ni mooy tax góor yàlla yegg fi mu bëgg dem ba yegg ci boromam ba bu ne dootul sax jar mu naan sunu borom dafay xool rek wala mu xalaat li mu bëgg rek sunu borom defal ko ko loolu lañ tàmbalee woon ak sëñ Mbacke Ñang mi nga xam ni moom la sëñ Pape Hann dalaloon ñu ñëw nag ci li nga xam ni moo doon lépp sëñ tubaa di alxuraanul karim àndoon kaak sëñ Alaay Ndiaye Cheikh Nindi nii nga xam ne ni loolu la ci jote génn te mu des lu baree bare euh, wax dëgg yàlla ñi ngi koy sant di gërëm di ko séenu itam euh, ci yeneen jataay ndax seen télévision Futurs Médias nii la fa yéene ànd ak yéen fii ba euh, ñaari fan incha allah ci weeru janvier ba ba sëñ bi di nu ñaanal ñi ngi koy ñaanal sunu borom yàggal ko fi te mu ak mucc li mu yéene ci màggal gi yàlla defal ko ci lu kawe njortam defal ko ci jullit yëpp te ni nga xam ni itam noonu la ko borom digle woon ndax moom léppam ci sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tegu kon ni ko doon waxee rek kenn ku nekk boo ñëwee boo ñëwul sax na nga jàngalu alxuraan fa nga nekk ja boo ko mënee jàng nga jàng ko boo ko mënee itam nga jàngalu ko ngir eh, sant ko sëñ Tuubaa ci li nga xam ni moom la woote ñu santale ko yàlla ci bés bi boo ñëwee fii itam nga bañ a bokk si. ci ñi nga xam ni dañoo ñëw rek ci màggal gi te màggal siwunu màggal si nag mooy dundal màggal gi ni nga xam ni noonu la ko borom diglee te sëñ Muntaxa Jatara dina ko fàttali saa su nekk yàlla nu boole yàlla boole ca ñooñu looloo tax seen télévision Futurs Médias di leen indil jataay yu mel nii ngir ku ñëw ci Touba xam ni nga xam ne nag noonu nga war a màggale kon mbokk yi lii lañ leen indiloon di leen seenu incha allah suba euh, seen émission yeewu leen dana nekk en direct fii ak Alaaji Assane Gueye ak ñi nga xam ni ñoom lay àndal buñ ca jógee itam Oustaz Taïb Socé incha allah dana nekk en duplex ak fii ak masjidi eh, cheikhul xadim gi nga xam ni moom ngeen jàkkaar lool muy eh, jumaa ji buñ ci jógee itam eh, sëñ Ndiaga Seck incha allah dana ànd ak yéen ci li nga xam ni mooy al jumaa te ñu defal ko mboolem jullit yi nga xam ni ñu ngi ci réew mi bu màggal gi ñëwee ñu jagleel ko juma Touba loolu daan ci ànd ak yéen incha allah ak yeneen jataay ak yeneen reportage yoo xam ni mboolem équipe bu groupe Futurs Médias ñi ngi fi nekk fii nag ci. kër gi nga xam ni mooy kër euh, soxna Maymuntul Mbàkke bintu euh, Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla yokk te musal ko yéene gi mu am ci groupe bi ba jox nu dal bu mel nii nga xam ni ku fi nekk dañuy jàpp ni rek yaa ngi ci kaw jumaa ji loolu ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax di sant njaboot gi di ñaan sunu borom sàmm ko te musal ko di leen wax euh, ñu fanaan guddi jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أهل بدر الأسود كدري نفى لخير الله في الدكار كل أصل جرهم مكار علمني الرحمن في السفينة بأنني الخديم في المدينة علمني الرحمن في السفينة بأنني الخديم في المدينة علمني الرحمن في السفينة بأنني القديم في المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أصعب عن الله في كرم بسا قبل مبارسي وحني خلبسا ني الرحيم عند داومي له بما أغني عن التساوم يسر للمنى لدى لبر ولي من خاد لي ما خاب عن كل ولي يسر للمنى يسر للمنى يسر للمنى منى منى منى لدى لبر ولي من خاب لي ما خاب ما خاب ما خاب عن كل ولي يسر للمنى لدال برولي من خاد لي ما خاب عن كل ولي لي خاد أهل بدر الأسودا من صحصح الواسع والحسودا لي خاد